Euh, ñëw fii tey pour encourager wala lancer initiative bu ngeen jël euh, peut-être que yàgg ngeen ko jël man maa ngi ci dog di teewee mais euh, démb dama waxtaan ak au commandant la gendarmerie waxtaan directeur de la police ne ko da ngeen war a boole seen doole def opération de sécurisation aussi bien à Dakar dans un premier temps Dakar Touba et Kaolack et même si possible fair faire simultanément pour que euh, Samba boy yi nga xam ni tey ñi ngi commencé di terroriser nit ñi euh, euh, maanaam delloo tiitaange ci ñoom. parce que loolu surtout parce que am ngeen outils yi am ngeen personnel bi am ngeen moyens yi te am ngeen aussi jàppale bi leen état bi jàppale pour loolu li ma gis dal na sama xel te gëm nañ ne bu ngeen ci bu ngeen ci taxawee léegi mbir mi dana dina soppi donc loolu nag bëgg naa te aussi mu bañ na opération bu ponctuelle parce que tey c'est vrai que mi ngi amélioré parce que tey foo ci dugg secteur fekk fa police wala fekk fa gendarmerie et là les populations ñi di leen gis parce que day xel donc dalal seen xel nag ci contexte bi surtout que guddi rawatina guddi c'est vrai que am na beaucoup de choses yoo xam ne yi moo koy moo koy waral mais gëm naa ne bu ngeen ci taxawee donc lépp danañ ci mën a dina mën a sotti euh, population yi mën a delluwaat tranquillement seen i vaquer seen occupation te du ñu am benn inquiétude voilà donc loolu moo taxoon man ne naa ñëw euh, encourager leen wax leen ni ñi ngi seen ginnaaw et euh, lépp loo xam ne lii moyen la bu buñ ci war a jàpp danañ jàpp pour que lii ngeen di def mu nekk lu am njeexital ci ci sécurité nit ñi Thank you.